bismillahi rahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim alayhi mbokki julit yi ñun waa jaayantek seexul xadim añu jumaay tuuba ci ajjuma ju nekk kon tey la ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru muharram mu dëppook itam le 19 juillet 2024 waaye ci calendrier bi tey ji ci ajjuma ji ci lañ am juróom-ñetti fukki ajjuma tey mooy sunu juróom-ñetteelu fukk ajjuma waaye tey ci ajjuma ji nag sëriñ Ibrahima Diop ca Abidjan Côte moo jaayante añu jumaay Tuubaa sëriñ Ibrahima Diop jëfam ji jiitu woon na bis bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ñaan yàlla suñu boroom ak sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaqa yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ngeen baal ñu àq alhamdulillah